jërëjëf jaajëf Aliou Ba jërë ngeen jëf Yacine Pouy jërë ngeen jëf maam Dieye ah, ak internet yeeg auditeurs yi déglu RFM 94 point 0 yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas ànd ceeg euh, passe partout yaakaar naa ni euh, fi ñu toll nii namoon ngeen ma waaye man tamit euh, namoon naa loolu xalaas gi gën naa ci dépasse. gën naa xalaas gi de. bien c'était bien avant qu'on compare à Paris. À Paris ouais. <laughs> ok ok ouais, tout se passe bien. waaw waaw ça va alhamdulilah. Oh, voilà ça va mon frère. bien ou quoi. ouais alhamdulilah. maa ngi lay ziar bu baax a baax Babacar di la nuyu. di nuyu auditeurs yeeg internet di ziar ñëpp. ñi ñuy déglu ci waxtu bi di lay ziar baax a baax. an sa mhm. waa ji moom. Ndiaye xam naa ni dafa nekk ci ay yitti rek. Euh, bu mhm. ci bu ci noppi rek dinañu dàpp wala bu dul tey rek di suba. incha allah euh, waa Casa Sport dañu leen di euh, féliciter ci seen championnat bi nga xam moom la ñu jël championnat ak Coupe du Sénégal. Mhm. waaye di féliciter waa génération foot ci junior yeeg. cadets yi nga xam ne ñoo jël coupe du Sénégal di kontaan ci championnat bi di bég di wax partenaires yi ak sponsors yi ak euh, homme d'affaires yi nañu dugal seen loxo ci championnat bi surtout année bi di ñëw dañu koy gën a soxla parce mm. que année bi di ñëw euh, football day gën a xew Sénégal dafay nekk ci àdduna bi yépp ñu koy waxtaane donc suñu championnat bu ñu ñëwee xool ko war ñoo rus wala kenn duñu xeeb donc ñu ngi leen di ñaan bu baax autorité yëpp yépp nañu bàyyiwaat xel ci football bi wala ci sport bi nga xam ni moom moo nekk ci réew mi paas euh, partenaires yi sant nañu leen gërëm nañu leen ñu ngi gunge ci euh, xalaas gi kontaan nañu ci ñoom bu baax a baax a baax xalaas gi njëkk nga ne lu mu wax kii abaa balaa ñuy dem ci ci xalaas bi euh, xam naa ne vidéo yi ñu yónnee fan yëpp jot ko bon maa ngi dégg sànq Seydou di ci waxtaan mooy ci africain yi bon ñi doon jàll frontière u bi ak Espagne mhm. bari nañu ñii nee nañu plus de deux mille lañu mais man ci recoupement yi ma def démb ak ci information ñu ngi toll ci ay alentour mille huit cent ay subsahariens lañu fi ñu dem nga ni dañ doon jàll frontière u Maroc ak Espagne hmm. boo gisee nombre bi ñu toll am na ay moor nag chiffre bi exact ñii dañ naan vingt sept ñii ne trente ñii ne vingt cinq bon xaw ma chiffre exact mais en tout daal am na ci lu mat ay moor yu bare te ñeneen ñi tam troxal nañu xeet tooxal boo xamante ni. Hmm. je pense que ni loolu. Euh, Abba suñu état yi foog ñu jóg quoi foog ñu xaw a gën a exigeant par rapport à ça c'est-à-dire kenn encouragé wul immigration mais tam am na foo xam te bu fa bu fa réew tolluwee faaw ñu taxaw. daf taxaw seetlu vidéo yi ku ko xool faay sa yaram dina daw te liy gën a paradoxal ci loolu Abba mooy nit ñee ngi jéem a jaar ci yoon. yoon pour tukki déposer passeport jot duñ seen passeport. ak yi laaj yi lay fayoo koog yooyu yëpp dafay metti de. ñii di bëtt frontière di dem tere seen bakkan. am jom rek xale yi. li tax ma wax la loolu gis nga fi ñu toog di wax nii nii nii am na ñoo xam dañoo war a dem màkk mun ñu dem màkk ndax seen passeport ñu ambassade France. waroon na dem France ñëw dem màkk déposer visa ambassade France may ñu leen visa. jox leen seen passeport. bari nañu loolu wax nañ ko fi waxati ko fi waxati ko fi naa nag mais problème yaa ngi commencé am bu fekkee da nga bëgg a jaar voie légale demuloo joxuñu la tamit sa passeport parce que am na ñoo xamante ne seen liggéey yamul dong ci France mën nañ dem États-Unis mën Espagne mën nañ dem feneen ak mais ba ci dem Màkka nit ki nga tere ko ko téye passeport mënoo ko delloo. il faut tamit nag suñu état bi nag franchement nag mu taxaw saay wax ñu wax lan moo xew qu'est-ce qui se passe ak passeport nit yi nekk ci ambassade France bi. il faut ñu taxaw ñu wax ci nañ ñu jox ci tamit aussi. ñu taxaw en face toog ñu wax ñu lan moo xew. ah mais waay lu tax passeport yi bu fa demee ba yegg du gaaw a ñëwaat ci ñun. du gaaw a génn yaakaar naa nit koy may sax mën ngaa téye mais koo mayul moom war nga koo mën a wax moo tax Amérique euh, tarkal bu ñu la mayul ci saa si lañ lay wax. Ah. mayu ñu la nga jëlaat say passeport ak yëpp dem bu ñu la dee may ci lañ ko fay téye. donc euh, wax dëgg yàlla li nga wax moom kenn du ko dindi ba pare na xale yi waat xel euh, ci seen bopp tey yaakaar naa ni sa yaay bi nga gis paas mu sonn ba nga bëgg ko dimbali. Hmm. war a ko tegal benn fitna. di dem ba ci faatu gën ko yokk ay problème mais tamit munoo ku ci nekk sa yitte. ak hmm. say soxla yaa xam fi mu la yegg ba tax mu jaral la yenn yi mais vraiment encouragé wu ñu suñuy doom yi ñuy gis ñuy dem di faatu ci yoon bi mais autorités yi lii rek war na leen indiwaat. Hmm. ñu dimbali ñu bu baax a baax. très important. ñu ñu ñu leen man nag yëgu ma ñu ne na ci ay néew ma amul nag mais yëgu ma ko. Hmm. ay subsahariens rek ñoo ci. waaw laa laa ci dégg yëgu ma ñu benn sénégalais. Hmm. ne ci am yàlla bu ci kenn desati. mais daal nañ taxaw. immigration yàgg na c'est-à-dire du Afrique dong la immigration am. am na États-Unis mais Europe la njëkkee Mexique Cuba ba fii may wax yow. immigration Europe la njëkkee italiens yi ñoo njëkk di immigré di dem Brésil. voilà mais léegi nag nañ taxaw nag ñu xool. italiens yi ñoo njëkk di jug yow di dem Brésil loolu fa la immigration commencé donc européens yi mënuñu bañ ku ñëw seen dëkk mais vraiment nan daal hmm. wax lii wax li ku wax lépp doon waxkat ku wax lépp doon wax ah non euh, Abba hmm. xalaas bi waaja woon na fi euh, mu ngi tudd Maxtaar lii ka Mbay sooy rappelé wu amoon na fi benn waay bu amoon problème mu terrain wala ca Mbuur ca Sali Sali Carrefour hmm. te mu jëndoon ay terrain am ci année quatre-vingt-dix-sept ya ñetti terrain nekkoon France waa ji kilifa la. Mhm. bi mu fa nekkee dem ba benn instant mu ñëw jël terrain yi may ko jabaram ba ñu commencé liggéey am benn waay bu jógee ci ginnaaw indi ak kayitam ne moom moom terrain yi. Hmm? commencé tabax affaire bu jur fa coow ba ay fetal ak yu fi ba ma jógee fii dem sali li ngay wax ni mu ngi woon Mbour waaw. waaw ba mu fa demee ba interview pa bi. Mhm. ñëw ñu teg fii waa ji ñu doon accusé ne moom moo ñëw foqati terrain ci ay loxoom waa ji ñëwul tontu mais dafa yebal benn copain am hmm. copain moo ñëw tontu ne la wax du dëgg fii ma waxee yoon nag tribunal vidé na dossier boobu jox nañu waa ji dëgg. kan lañ jox dëgg. mooy Makhtar Lika Mbaye nii ci nekkoon Europe. waaw. Hmm. tribunal jugé na ko pare. boo bëggee rek mën nañ dem xool. nañ dem aj dama leen defal message bi pour di leen gërëm ndax taxawu ngeen ma. parce que bu mu ñëwee Saly. mois de mars février plutôt kay yëpp laa ko wonoon borom bi nag dëgg la bëgg et le droit a été dit ñu mel ni ngi wàjji nag moom xam nga dama ne dinaa ko topp léegi man ndaxte li mu def dafa yomb lool te di fàqakal di toroxal ay nit nga xam ne ñu mënuñu fayu diggante bi jox nañ ma ci message yu bari yu bari biir sali heureusement qu'il y a la justice dans ce pays ça a été waaw parce que waa ji dafa ñëw teg mur suma biir kër ma toj mur bi moom moo porte plainte plainte moo jàll plainte bi njëkk nag dañu amoon ku doon fi doon jafandul moo tax jëlee nañ ko fi yóbbu ko feneen mais ñi xam mbuur ñi xam problème mu sali xam nañu kan lay wax léegi nag yéen xalaas dama leen di encourager ngeen continuer def seen liggéey dafa rafet dafa jekk parce que Sénégal nu ñu mel ni yéen nañu soxla ak magistrat yu bees yi wala yoo xam ne dërëm tiitalu leen tiitalu leen ñi nga xam ne bu kenn découragé bu kenn nangu ñuy foxati sa all ci dëkk bi yéen tam bu leen di ut terrain teg leen ko ci këyit yu leer bu leen di économiser ak yooyu dem leen ci notaire moo gën a wóor ndaxte dëkk bi dañ lay jaay jaay ko keneen ak keneen man nag bu ma dellu see suma waa yi moom dafa ñëw wax na fa expliquer bu muy génnee fetal bi ba dem police muy expliquer jabar ji daf ko jaay bi mu fasee tubaab bi kooku jaay ko keneen kooku jaay ko keneen moom mu jënd ko ñi mu wax ñu ci bari ñu dee lañu ni ñu dee affaire njublang nag mënul weesu loolu gis naa nag ki ko doon tontu lu wuyuwuma dama xamoon ne rek na am bës dëgg bi feeñ dafa nekk loo xam ne li Sénégal buñ ci jugul parce que affaire yi du jeex parce que je le rappelle à la rentrée des Tidiane dafa taxaw ci kanamu président ne ko yaayu a eu deux mille vingt cinq cas de litige foncier enregistrés au Sénégal je répète deux mille sept cent vingt cinq cas. de litige foncier diggante bi xool leen waaye yéen Sénégal yéen a ngi koy wax seen plateau di ree mais yéen gune yi tey fan ngeen ni dëkk bu ñu jaayee lépp ah di jaay ay villa ay cent millions ban Sénégalais moo ko mun jënd bu jaayul cocaïne wala nekk deful politicien ñu xool dëkk nag mooy di sóoraale ëllëg suñu doom ak suñu sët am fu ñu dëkk te Sénégal du dëkk bu mag mais li fi nekk ci yoonu affaire suuf dafa bari dañ ko war a regle te maa ngi koy répété benn affaire moo nekk depuis bi ñu ko joxee maire yi la problème am suuf si nañ koy dénk préfet yi suuf si nañ koy dénk waa domaine maire bu ñu élire ku ci njëkk toog li ngay njëkk def mooy xool ban suuf nga mën a jaay te diggante bi émission bi amoon ak tey ñaata maire la ñuy jàpp gum réforme bi Macky Sall nag promettre à la foofu la war a nekk dindi suuf si la gestion patrimoine foncier des mains des maires loolu mooy dëgg bi maire yi mënuñu téye suuf si ils l'ont prouvé tous lii nag mënul wéy ci dëkk suñuy doom suñuy sët nekk taalibe ëllëg moom daal di lëndëm seen waay way na ko ëllëg goo leeruma lii mooma tiis man loolu nag moom mooma tiis ndaxte man mii maa ngi sant yàlla li ma leen waxoon au départ mun naa fayu mais ñu bëri mënuñu fayu benn artiste ngi nii sama wet ñaari terrain am la ñu foqati bu demee seeti maire bi maire bi xool ko du ko wax dara mu jigi mu gedd dem ba noonu la ñàkkee ñaari terrain am te dafa am njaboot ne ma mënuma ci dara si mun ngeen ci dara justice am na ci dëkk bi presse bu mel ni xalaas mu ngi fii boo gëmee li ngay def na say këyit leer nag képp koy dox këyit na nga bàyyi démarcheur yi liñ la wax ci yoon nga def ko parce que man bu ma toppoon démarcheur waxtu bi ñàkk naa démarcheur dem naa gis naa démarcheur bu may laaj un million pour demande de bail un million pour permis de construire c'est de ni da ngeen di nangu aussi teg affaire yi ci yoon liñ leen wax lu yoon wax nga topp ko bu boobaa di nga am foo jafandu ku la bëgg a jaay doole ku bëgg a foq ci du mu nekk li ma bëggoon daal mooy Sénégal yëpp dégg ma ni ñu ma déggoon parce que pré bi ñu bari contacté nañ ma yéen nag moom aw ma seen pay loolu di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal borom bi jàppale leen ci seen liggéey bu jafe bi jaajëf gaañi Makhtar Gueye lii ka grave de dégg nga ko c'est grave. <laughs> yaakaar naa nag moom la wax wax na li ci ëpp solo moom moom wax na ko. mais fu nit di muccee ngay laajte. kenn xamul jël sa ay millions def ci kër. mu légal ñu jox la ay kayit jox la lépp àdduna di dox nga muré teg say suuf teg say kii di waaj a tabax ñu ñoo ne la moomoo ko dañ la ko jaay jaay ko keneen ak keneen. nga ñàkk. te bëri na ay moodu moodu yu nekk Europe yu gedd Sénégal ne du ñëwati parce que dañ leen fee dóor même bu dul ci affaire suuf dóor mm-hmm. ñu ci bari seen famille am na ci ñoo xam ne problème suuf moo tax. ñu gën ñu gën ñu gën seen pour investir ci réew mi. Mhm. quand même. dinaa dinaa wax abaa ñaari mbir de xam nga problème bii nii benn benn problème moo ko déclenché woon mooy gendarme boobu ñuy wax Serigne Diop. Mhm. yaa ngi rappelé boobu mhm. tamit ñu ngi nekk en cours nañ ci ñëw parce que affaire bàyyi wuñ ko en fait bàyyi wuñ ko ñu ngi ciy topp boobu ba tey am na fu muy toll doo ko mën a wax. mais ñoo ngi ci de toute façon dinañ ñëwaatal ci instant bi dossier wu. Serigne Diop ak famille Kefakan Badian aussi fan la toll parce que dossier boobu tamit litige mënu koo weesu. Mhm. boobu moom. ndax na suuf de. laa ilaaha illallah ay kayit yu xajam. c'est-à-dire boobu la mu ëmb bari. kayit yu xajam boobu la bari. waaye dafa mel ni lu mu xajam xajam xajam. <laughs> li may liir ni ci kaw bu dee xalaasu tay gi lii la day euh, compliqué na de. abaa ah lii woo gën a xajam fuuf. ndaw si. attaaje mbuur la ku ne ci nga. waaw yaa ko fi waxoon. awaan ndaw si day sëy. nee na mariage forcé dañ ko may jëkkër mais bëgg ko. ci lu mu wax. Mhm. waxuma ko nag moom moo ko wax. neena tamit jëkkër di tax koo demee noonu maanaam daa xaw a tële. moom ndaw si mu ciy waxtaan ak xaritu jëkkëram. Euh, soxna si. tool biñ ko jox. waaw ki war a bay ci tool bi illeer gi mu yor day yànq. voilà waaw waaw waaw leer gi seerewul. dañ cee lonk benn pont yenn saa yi mu xaw a. ceeb leer gi seerewul. biñ ci waxtaanee xaritu jëkkër ji nag. Mm-hmm. kooku ne ko da ngay ñëw ñu waxtaan ci. ci affaire tool beeg. illeer bi waaw. <laughs> Aba ndaw si dem ci xaritu jëkkër ji bu ñu waxtaanee mbirum illeer bi. am na ñu am fi toolu jàmbur loo ci waxtaan. leer larme tamaate lay bay naajo lay bay li muy bay lu sa yoon ba nga naan ko kaay ñu waxtaanee illeer geeg tool gi ndaw si dem na xaritu jëkk ji bayal na ko. ah daa bay ci toolu jàmbur. yamul ci bay bi mu woo yeneen copain ñu ñëw jàppale ko ci bay bi. ñoom tamit ñu bay ci toolu jàmbur. xanaa ah, tool bi alalu mbooloo la eh, baal ma ñu déglu. di waaj naan les larmes de Moustapha Ndam. baal ma ñu déglu les larmes de Moustapha dem. ayca. maa doonoon naa da dama amoon jëkkër te sama xarit jëkkër bi di doxaan ma may génn moom après mu amaat yeneen xaritam sama xarit jëkkër bi amaat yeneen xaritam di jël sama numéro bi di leen ko jox may déggante ak moom te man loolu xamaluma heure su heure su ma nee damay dindi numéro ma boole ko wala ma boole ko xamuma daal lu may lu may lii ba du ma ko wax kenn te instant bi damaa teg pression te xamal lu ma wax rek dama koy def te man xamal loolu lu mu waa ma tëdd ak ñoom dama yóbbu bu may jógee sama kër damay tàggoo feneen foo xam ne bokkut ak sama jot bu ko defee ma dajeeg moom foofu noonu bu defee bu ñu defee li ñu ba pare bu pare mu woo beneen xaritam ci kër yi ñu dem mu waat beneen xarit tam kooku tamit tëddee ma waaye ñeneen ñi ma ñi jox sama numéro dañ may woo rek waaye gisante wu ma ak ñoom sama xarit jëkkër bi ñoom ñoo daan ànd bi nekkee xale ba niñ doonee mag ñuy ànd ay xaritu benn bakkan kenn bëntuwul sa morom dara sama jëkkër nag biñ ma koy doog di may boobu dafa xawoon a tële li man bëriwut après ma wax ko xaritam bi xam naa nag foofu la ma xaritam bi jaaree dama ko wax la xaritam bi ni ko kii li man bëriwut la ma xaritam bi woowee dama daa am lu ma lay wax te boobu ma nag sama borom kër bi dañoo jotee mu ne ma damay dama bëgg nga ñëw fii ma wax ak yow ndax ñu jubóo kër ma dem fa après si la loolu xewee si ma tëddee te yaatuñ sa ma daan fay demaat ñoo fi demaatee mu daan may tëddeewaat kër xaritam bi ma yóbbu woon bi mu paree kër xaritam boobu moom tamit daan may te sama jëkkër bi moom li mu mën bëriwul fu mu woo moo dem wuyu jikko loolu kese moo indi affaire bi nii te man sama jëkkër bëgguma ko dañ force woon rek dugal ma si waaye bëgguma ko keneen ñëwee mu joxaat keneen sama numéro kooku tamit du woo ma kooku fu mu nekk dama ko fay fekk dañ groupe woo mais ne man ak ñoom duñ gisan ñoom mel ni ñun groupe bi kenn du ci gisante sa morom kenn ku ne yaay xool fi nga mën a daje moom rek nga dem fa daje fa moom sama mbokki jëkkër yi kenn faale tuma kenn tegatuma fenn sama kër goro laa nekk nii ki jur sama jëkkër si laa nekk nii buñ ma koy may nee naa leen man bugguma ko man sama yaay dafa daan sama rakk yaay moo ma yar bi mu ñëwee ne ma diw de du may sëyal nii bi mu ñëwee ne ma ba xam bëgg nga ko ma ne ko man boo leen ma ko may waaye tamit man bëgguma ko fekk na am na keneen ku may génneel ma ne leen diw laa bëgg ñu ne ma ku sa mbokk la te dangay sëy moom force li ñu sëy ay problème buñ toogee un mois xuloo ma dem suñ kër muy waan ma bu ma ñëw bu may non 2016 si ba tey bu bëggee man damay bañ léeg-léeg damay bañ léeg-léeg mooy loolu boobu ba tey sax mënuma fex nga ci fin bi ki mu bëgg ba tey mi ngi déggante ak moom. am na ci partie élément boo xam te ne man maa ko dindi. moom moo ma ko ñaan parce que su ma ko ci bàyyi woon. dañuy xam kan la mm-hmm. Mm-hmm. mais lii gën na garaaw sax li ñu bàyyi gën na garaaw abaa li ndaw si wax léegi nag taxaw seetlu. Mm-hmm. taxaw seetlu parce que xëy na tooñ bi neex na et mais man ci ma jàpp mooy il faut que nit yi souvent aussi ñuy xool ni ñuy mayee xale yu jigéen yi parce que yaakaar naa ne nit du nekk ci lu bon di ko ndamoo encouragé yow ma ko ci lu mu nekk nag d'accord ma ci lu mu nekk mais jigéen ñi nañ leen di may ñu ñu bëgg. nañu bàyyi di forcer jigéen ñi parce que seen mbokk la parce que nangam ak nangam ak nangam ak nangam jigéen bu bëggul bul ko forcer ki mu bëggul léegi nag mbonteef la bakkanam la topp wala leen ak leen mu ngi doon daal en tout cas daal. mais yenn saa yi ñu ne mm, dogalu yàlla la wala ñu ne seytaane la mais parfois yow mi nga xam ni yaay victime bi wala ngay victimiser wu sa kii da nga ci am. responsabilité bu mag. parce que tamit boo demee fenn man moo ko doon dégg mu ne benn yoon laa fa def laa fa dem ñu daal di may def li ñu may def neexuma bu ñëw wax ci rajo bi ma ne waa mais bi ma fa demaatee. Mhm. genre te nga xam lan moo la fay xaar loolu tamit am nga ci part de responsabilité. Euh, mhm. nanu ci bàyyi xel bu baax peut-être euh, kenn du ko wax ni yaa yées yaa bon parce que kenn mënu àtte fii kenn mais na bàyyiwaat xel ci bu baax ko buggul ñu may la ko. Mhm. paas ñaanal baat nga tas. mais loolu du la jox benn excuse pour ngay dem di defi ndaga su excuse moom mun ci am ah, da ngay ñaan baat nga ni kii bëgguma ko naa tas aviser ñëpp ñu xam ne kii bëggoo ko bu ëllëgee ci leneen lu ñu la dégg sax te sax kenn war la dégg ci leneen bu ëllëgee xaaral ba sëy bi tas mu tas après nga dem nekk ci la neex mais quand même di sëy di def la neex après ñëw victimiser wu ni kii loolu moom wax dëgg yàlla Sénégal booy ci internet bi ñooy laaj lan moo tax page bi amul audio ñu tax Facebook amul audio ku bëgg wax sa soxla audio ko xam naa ni kon nga gis lu neex. lan ma laajal la moo tax Moustapha Naam di jooy. man fan yii damaa gis commentaire boobu di di wër rek. les larmes de Moustapha Name. loolu journaliste RTS bi. moom la gars yi di di di ñëwaat di ko indiwaat ci kii bi. Moustapha ah, mooy benn yoon la jooy mooy kii wax ci ci ci maanaam action lay topp rek moom. jooyatul waaw. oh la rage la rage. la rage du lundi. <laughs> alors oh la. Alô, presidente da República, presidente, coronel Pecola, Barafsanda, Corinthians, Zoro, Reflex, Zoro, Vitória, Gori, presidente da República, presidente, presidente da República, Miguel Moidemar, Soricida, na carta da Capra, do Capra, será construída em 1912, mané, para baixo, na Yaclara, mané, clara, residência oficial do governo nacional da África Central, le por será se guardiar 1964, vai abrir 42, vai abrir 2012, Max Sal, 2012, não é minha ñu xaaral ñu am ci woote bëgg a jot président ku ko la war a doon fa lay woote salaamaaleykum. yaa yaa yaa gars yi ni mu dalee. salaamaaleykum. yee yee nu mu demee naka waar gaay. sant a joxal tur bi a sant bi te nga rafetal kàddu yi. nga fi ngay wootee. mais kàddu yi pourtant ñaawul de. man de déggoo man la ñaaw na de dama ni ah, ah, rafetal. dama la rek ma nit quoi pour nga komp quoi yow. Ah, ayca joxal tur a ak sant bi fi ngay wootee xës xës lan. booy xës quoi. xës moo ne sa carte d'identité. waaw xës moo ne ci bi quoi. oui oui bu ma fontoo de. waaw mais gars yi xoolal bul ma bul ma bul ma fontoo yow it dama lay coupé de. waaye xës la xës bi na xës. ayca waaye léegi mooy sa soxla. ci Louga ah, waaye ok sama soxla mooy man maay euh, euh, je suis le président des voleurs du Sénégal quoi. loolu man maay njiitu sàcc yi mi quoi. yaa ngi jiitu sàcc yi ci réew. waaw sàcc yi quoi oui bala ngaa coupé dinañ la fi nga ne. waaw ba tey ba tey ba tey man ragaluma loolu. Ah. waaw donc ku ma bëggoon waaw bon am lu ma teg quoi benn instant quoi. léegi lan. waaw mooy bon euh, euh, euh, ci wàllu càcc gi maanaam ak événement beeg bagage yi. Hmm. waaw am nañ benn méthode quoi bu ñu teg. méthode lan. waaw boo xam ni méthode sàcc quoi maanaam plan wu sàcc bu ñu teg quoi boo xam ni bon bu abordable lay doon ci ci suñu côté quoi bon lu ko dalee marché HLM jàpp marché Sandaga marché Zing. Hmm. waaw fenn fu ci ne bon am nañ fa ay représentants yoo xam ni xam nga gars yi def par bloc quoi. xam nga mën a mën a mën a mën a gérer parce que comme léegi service d'ordre bi dañoo jóg ci ko xamal gars Sénégal léegi jàppatum sàcc du yóbbu police de ah léegi jàpp rek ba mu mel mais ba tey bu boobaa nañ ñu sol bu nekkee dàll loolu méttiwul waaw ah, baax waaw mais coow li daal mooy xam nga comme ñoom dañoo jël service d'ordre bi di leen jéem a tuur ci dëkk bi pour yenn côté yi ñuy jëm a fàtt suñuy boor ak affaire yooyu ah, waaw pour sécuriser borom dara li waaw ba tey léegi ñun am nañ ñun suñ sécurisation ñu nit daan sécuriser suñu bopp waaw ah, baax na borom dara li daal jaasi yor jaasi. waaw mais mais ñun ñu sàcc sàcc bu tulul amul pour mu leer. Ah. sàcc bu tulul amul. Ah. waaw ñun ñëpp tul ko ci jam du naaj. ah kon baax na waaw benn instant bi ma leen leen événement bi bu ñu bëggee gars yi mu xam affaire bi dal non nañ tey def ndànk xam ni sàcc yi xam dañu bokk ci ci ci askan wi <laughs> sàcc yi dañoo war a dund comme tout le monde. xam nga mais du ñu gis waaye benn benn benn greffage ah cheveux naturel buy jaray sept cent mille nit këppoo ko nga di ko bàyyi loolu yàq la yàq la et puis tamit bon benn iPhone treize booy bu ndaw yor ko même pas quinze ans di ko kàlla kàlla mais xamul sax lu ñu. iPhone si tàngoor la ne léegi jigéen ñi dañuy ala garçon xam nga léegi perruque yu gàtt yi maanaam yu dagg yu gàtt yi soxla moment bi parce que moment wu été la moo gën a dox ci marché bi quoi ñun fi ñuy jaayee. foofu sax foofu lay gën a baaxee quoi mais daal di alerter ni président ni ko sàcc yi ñu ngi jooytu ñu ngi ñaxtu. baax na waaw li ñuy ñaxtu mooy xam nga seen côté yi ñu doon jaar yëpp di neexle waa président mi ngi koy xaw a fàtt quoi. mais loolu noonu. ma ni du ngeen baaxle tey du ngeen baaxle ëllëg. seen yaakaar dina tas. a ah, du ñu baaxle. te kun ci jàpp daan la dóor ba nga mel naw dàll tabaski gi jaaykati xar yi. ñawkat yi commerçant yi seen bakkan lan ci teg. leer laa lay wax xar yi ngeen war a jënd yëpp sax danañ ko sàcc. yéen léegi xam nga lan ngeen di tabaskee pour mu leer. baax na xam nga lan ngeen di tabaskee pour mu leer. Hmm. dibi dibi. baax booy ma votre correspondant. dibi ngeen di tabaskee yéen yéen xar sax du ngeen ko gis. ok ba tey ba tey